ceytu dëkk bi la Cheikh Anta Diop gane si adduna nekk foofu ca Bambey yi wax gox bilee ngi ñaawlu doyadal bu ñu leen dal ci biir réew mi ndax amuñu collège hôpital ak poste de santé ax ci dolli village bi amul beneen activité. ici au village de Cheikh Anta Diop ceytu dafa am mën naa ni ay problèmes yu bëree bëri yoo xamante ni bii jaadu na ñu waxtaane ko ci biir loolu mën naa ni. am nañ fi problème mu d'abord problème boo xamante ne mi ngi jëm ci wàllu école euh, muy dëkk boo xam dafa ngande lool macha allah euh, année bu jot bu nekk maanaam boo dee xool préscolaire ba université dafi am ñu fiy génne war a génn dem jàng ji euh, li ko commencé ci ñi nga xam dañuy am entrée en sixième war a dem génn daanaka boo dee xool ay at a ngi nii si ginnaaw ñu si bëri bëri dañuy dem ba si digg bi ñu bàyyi jàng li koy waral mooy dañuy dem ay xelalan d'accord dañuy dem si yenn village yoo xamante ni bii maanaam nekkin ba dina xaw a jafe si ñoom ñun ñu doon village bu ngande boo xam ne jàpp na ni war na noo mën a am collège ñuy sàkku ci état du Sénégal mu defal fi benn construction collège benn sem waaw parce que vraiment ici au village wax dëgg yàlla jàmbaar bu baax a baax te aussi tamit loolu mérite bi li koy def mooy li ko war gën a mën a motiver mooy ñu am collège quoi waaw sàkku nañ daal ñu defal nu collège waaw également aussi sàkku nañ tamit ñu defal nu benn préscolaire waa case des waaw parce que xale yi loolu aussi tamit gis na ni daal bu amee dinañu gën a jàppale ci wàllu njàng élèves yu bëree bëri tey jii nii mën naa ni bu fekkee euh, ñi fi génne dem jàng ji si collège tout comme lycée dañuy dem ba si benn moment ñu bàyyi jàng waaw parce que ñu si bëri fa yi nekk condition yeen fay nekk day xaw a metti si ñoom xam nga jànge fi nga dëkk daa gën a taw féexe jànge foo xam ne dëkkoo fa waaw te également boo dee xool village yi nga xam ne dañoo am collège xaw nu jigee daanaka distance bi xaw a metti également ci xale yi mën a xëyee fii dem di jàng ji foofa noonu bon fii dangay ngay def à peu près ay 9 kilomètres minimum 9 kilomètres à 10 waaw mais problème bi mooy comme daanaka boo dee xool léegi li si ëpp ay xale lan xale xam nga li mën a supporter fe li mag mën a supporter fekku ci xale donc mooy waral ñoom bu ñu jàngee jee condition yoon fay dund li ci ëpp mooy waral ñoom ñu abandonné quoi. ñun fii lañ jàngee à Ceytu yàlla def ñu jànge fi ba génn aussi am diplôme yi nga xay ne war nañ koo am bay jàngalewaat ba ñibbisiwaat fii di jàngale kon mën naa ne li xew fii lépp dara ump ci benn am nañ fi école. école bi chaque année day am résultat yu baax mais problème bi fi nekk mooy booy après dañuy am problème insertion pour fu ñu leen dugal ak yooyu tax ñu ci bëri fii leen xam dañ leen di yóbbu ci yeneen village yi conditions yi day xaw a metti en plus dañuy parcourir ay kilomètres yu bari pour dem jàngi loolu nag élève bu ko def benn weer ñaari weer da ngay feebar ba dootoo mën a jàngi au finish da ngay mujj bàyyi hmm. loolu kon lu yàq njàngum xale yi loolu ci la ñun boo gisee loolu lépp ñu mucc ci bi ñuy am fii ay collège amu fi woon dañoo deman ca ville ba nga xam ni feet ba feet lañuy ñuy mën a dikk suñu dëkk léegi nag loolu lañ bëgg ku ñu ci dimbali ndax caytu ak dayoo bi mu am ak li fi juddu lépp li fi dëkk hmm. buñ sañeen ñu defaral ñu fi école boo xay ni ab seem lay doon suñ doom yi buñ génnatee mën a jàng bu ko defee njàng mi gën a kii mais ay at a ngi nii taux de réussite bi day baax mais bu buñ demee ba ci biir ñoom ñëpp dañuy abandonné te loolu lépp ñàkk ab seem moo ko waral te dëkk yi fi am seem yëpp caytu moo leen ëpp 42 village ñoo nekk ci commune bi commune bi caytu moo ci ëpp moo ci ëpp kon dafa yoon dafa def mu am ab seem doomi dëkk bi di ci jàng ak ñeneen ñi ci des ndax ñi boot caytu attanuñ ko caytu dëkk yi ko boot attanuñ ko moo tax ñi fi ja jóge di jàngi dañuy bàyyi kon ku ñu ci dimbali ñu jël beneen bi may évoquer aussi mooy suñ xale yi tout tànk yi doon na baax ñu defaral leen maternel du moins benn maternel quoi case mm-hmm. des tout ñu man di ca jàng ndax ñun ñu nekk ci école élémentaire bi dañuy am ay difficulté aussi ndax day xaw a metti lool xale yi nga dugal leen li ci seen bopp yi ndax am na foo nga xam jaaruñu ko dañ faa dañ koo rate kon loolu ku ñu ci dimbali aussi dina baax ndax am na ñu capable pour yor leen te xale yi duñ def dara taxawaalu lañ fi nekk. ñàkkum collège dinay faral di yàq njàngum xale yooyu lee te waa gox gi di ci ñu équipé leen seen poste de santé ci personnel ak garab bu doy. village Cheikh Anta Diop waroon na am sax centre de santé te waxumay poste de santé waxuma hôpital mais centre de santé waroon na mën a am léegi nag ñu ngi woo état bi mu jàppale ñu construire ñu fi benn poste de santé boo xam ne daf koy reconnaître mën noo ah, jox ay personnel bu qualifié ay ICP ak ay sages-femmes d'État waaw bu ko defee aussi ñu mën a doter ay médicaments bu ko defee nit yi faj bi mën a mën a jaar yoon parce que nit mënul dund sans mu faju waaw santé moom avant tout la santé avant avant tout Euh, dëkk bu toll ni caytu vraiment waroon na dépasser fii mu toll. poste de santé bi amul infirmière amul sage-femme loolu rafetul nit ñi dañuy jógee dëkk yu sori ñëw fii di faju si dañu fi fekk docteur bu leen faj jigéen ñu wéru tamit yi nekk fii dañu jël ay sareet di dem yeneen hôpitaux yi pour accouchement yi mën nañoo accoucher si yoon bi te lu nekk mooy si bu ñu sañoon moom ñu dimbali ñu si sage-femme ak infirmière soxla nañ ko trop. ambulance tamit fii ngay nekk des fois nga am accouchement nga war ka évacuer mu dem Bambey doo am lu ko yóbbu da ngay obligé ngay woo ci yeneen poste yi ambulance wala ngay jël ay kalandoo ñu jóge Bambey ba fii te xam nga ni malade bu nekk fii di sañee nga jël kalandoo Bambey indi ko ba fii pour mu war a jël malade bu yóbbu ko loolu tamit risque la buñ sañoon ñu dimbali ñu si loolu. jafe-jafe yi ñuy am si hôpital bi nag bëri na parce que comme ni ko niñ ko ñuy waxee sànq rek hôpital bi. dëkk bi ñoo ciy def seen ay propre moyen manqué na lu bëree bëri parce que sage-femme d'État manqué na fi te lu toll ni dëkk bu toll ni dëkk Cheikh Anta war nañ mën a am sax centre de santé jigéen ñi bu ñu tollee diggante parfois sage-femme bi fii du fi nekk et tout te loolu yëpp ay difficulté la dañuy jël ay charrette di dem ci yeneen village yi et kon loolu bëgg nañ ku ñu si dimbali bu baax a baax gannaaw loolu la jigéen ñi tamit ab financement la ñaan ndax ceytu amul benn activité génératrice. jigéen ñi moom bëri na jafe-jafe yu ñu fi jànkonteel parce que amuñu lenn lu ñu def fii amul benn liggéey amul benn projet bu ñu def dañuy xëy di toog moom kase moo fi am te boo xoolee dëkk bi tey ñu ci bëri la majeure partie bi yëpp dañoo jàng peut-être comme li sama confrère yi wax sànq moom lay rejoindre ñoom boo xoolee. côté école bi ñu doon wax sànq par exemple ñëpp dañuy bàyyi parce que problème boobu la ñuy am ay sixième la ñuy bàyyee quatrième troisième parce que dañuy génn neuf kilomètres da caytu bu ñu demee ba foofu dañ fay am ay difficulté ci nekkin bi par la suite da ngay obligé bàyyi loolu daal nekk na su bëgg nañ ay projet vraiment ñu dimbali ñu ci parce que ay jeunes yu engagé ñoo fi nekk mais amuñu dara lu ñu def. en tant que village de Cheikh Anta Diop aussi vu que dafa xaw a nag ñoom tamit dañuy rencontrer ay problème de réseau xam ne nii pour nga def communication bu baax jàll mënul nekk yenn outils informatique yi mënoo ko fee utiliser parce que dafa am problème de réseau bu ñu sañoon aussi ñu am fi ay antenne télé euh, téléphonique yoo xam te ni dinañ am réseau boo boo xam ne bu adéquat la bu favorable daal waaw loolu tamit ñu ngi koy solicité bu baax a baax état Sénégal nag ñu ngi ko ciy woow bu baax a baax lii c'est un cri de cœur boo xam ni waa dëkk bi yëpp ñoom ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy